ma leen di jaajëfal bu baax a baax Birahim Touré ak Cheikh Diop yéen ñi fi nekk di leen di nuyu di nuyu mboolem ñuy topp Leeral TV Leeral FM ak leeral point net ñu leen di toppal xibaar yi ci li nga xamante ne moom mooy territoire national bi yëpp jamono ji ci lu jëm ci élection présidentielle jamono ji ñuy wax ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy euh, quartier euh, Touba Ndorong nekk ci Kaolack présentement ou particulièrement ñu ngi ci li nga xamante moom mooy école euh, Sengane Badiane école élémentaire bi nag euh, li ci nekk spécificité mooy fii la candidat bi di Serigne Mboup ci diwaan bu Kaolack fas yéene woote ni ki ëllëg ci li nga xamante ne moom mooy bi sama ginnaaw mooy salle bii ngeen di moom mooy bureau de vote numéro 8 kon fii la candidat bi di Serigne Mboup fas yéene def li nga xam moom woote ëllëg incha allah lay doon ci li nga xam moom mooy jongante njiitu réew yi kon jàpp leen ne centre de vote bi juróom ñett bureau de vote ñoom ñoo fi nekk euh, ëllëg incha allah ñu fas topp ki nga xam ne moom mooy Serigne Mboup mu ñëw woote fii euh, ci li nga xam ne moom mooy élection présidentielle bi lépp fi mu ne nii yemb na Euh, lépp li nga xamante ne war nañ ko fi indi teg nañu ko sécurité bi déjà la police est là ñu xaar ëllëg incha allah ñu def li nga xamante ne moom mooy tànneef bi ànd ki nga xam ne mooy candidat Serigne Mboup fii ci Kaolack. ba tey ci leeral yi jox leen xibaar ci lu jëm ci joŋante ji réew yi Kaolack ñaata électeur ñoo fi nekk maanaam ñaata ñoo war a dem ci mbañ gàcce yi ñaata bureau de vote ñaata centre de vote wala sax est-ce que lépp pare na ngir ñu def élection maanaam tànneef njiitu réew bu mucc ay ñu dem ci préfecture bi te seek préfet bu maanaam autorité administrative bu département bu Kaolack naam nekkul ci ay disposition ngir wax ci vidéo bi waaye waxtaan na ak ñun kàddum yaa ngi nii. ñii jund ci liste électorale yi mu ngi toll ci e, ñaari téeméeri junni ak juróom ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn. bu dee wàllu sécurité moom euh, que ce soit gendarmerie wala police wala armée ñëpp ñu ngi sur place actuellement ñu ngi ci ci bureau de vote yi bu dee matériel aussi depuis ce matin commencé nañu yóbbu ko ci centre de vote fii nag mooy école élémentaire El Hadj Ibrahima Niass fii ci Kaolack mu nekk école boo xamante ni nee nañu moom mooy centre de vote bi gën a mag fii ci Kaolack. maanaam Medina Baye ndax boo ko seetloo jamono ji am na ñaar fukk ak ñeent ay bureau de vote mu nekk centre boo xamante ne bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot a jot daanaka ku ko gañe sa xel mën naa dal ci kaw lag fi mu ne nag lépp yemb na matériel yi ngeen koy gisee ci image yi lépp indi nañu ko di xaar ëllëg ñuy bi bureau de vote yi bu juróom-ñetti waxtu jotee ci suba.